Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Quel est le rôle et la place de l'art en général et du cinéma en particulier dans des moments de crise politique L'artiste, le réalisateur peut-il porter sa voix Quels sont les impacts négatifs de la crise politique sur l'art, le cinéma et la culture en général nous posons ces questions dans ce spécial numéro Page Culture dédié au cinéma, surtout Dans le contexte actuel, avec le manifeste communiqué qu'ils ont produit, les réalisateurs et cinéastes se positionnent dans le débat autour de la crise politique au Sénégal. Le cinéma est un art puissant, est un levier de communication à travers lequel le réalisateur peut dire son opinion et faire porter une voix. Oui, le cinéma a toujours été un moyen d'expression, un moyen qui permet euh, de prévenir certaines, certaines crises, qui permet de de de d'inciter de, de, les gens à une cohésion, à, le, à un bon vivre ensemble. Euh, ça, le cinéma le permet. Mais euh, on peut remarquer que dans tous les pays du monde où il y a eu de sérieuses, de fortes crises euh, politiques, euh, le cinéma a régressé. parce que euh, impossible de développer une industrie cinématographique dans un pays en crise parce que le cinéma c'est des investissements et personne n'ira investir dans un pays où y a une instabilité politique et notre cinéma le cinéma sénégalais euh, a déjà trop de problèmes pour euh, supporter euh, les conséquences d'une crise politique. Et d'ailleurs, les cinéastes sont actuellement à la Berlinale où deux films sénégalais, Demba du réalisateur Mamadou Dia et Dahomey de la réalisatrice Mati Diop sont en compétition officielle. Des films qui témoignent de la bonne santé du cinéma sénégalais qui ne devra pas pâtir du climat politique délétère. Oui, Monsieur Dieng, on peut constater depuis une dizaine d'années que euh, le cinéma sénégalais a répondu présent à toutes les rencontres euh, cinématographiques euh, internationales. Oui, nous sommes actuellement à la Berlinale où deux films sénégalais sont en compétition, Euh, le film de Mamoudou Dia euh, qui s'appelle euh, Demba, un long métrage de fiction, et le film de Mati Diop, Dahomey, qui est un long métrage documentaire. Ces deux films qui sont actuellement à la Berlina. Et il faut remarquer aussi, faire constater, on constate que depuis une dizaine d'années, euh, le Sénégal a répondu présent à toutes les grandes manifestations, rencontres cinématographiques, Cannes, Berlinale, Venise et autres. Et je pense que c'est une bonne chose. Euh, on ne peut pas se permettre euh, euh, actuellement là avec euh, cette relance du cinéma sénégalais, l'essor du cinéma sénégalais, on ne peut pas se permettre euh, d'une crise euh, politique qui va venir euh, freiner cet essor parce que impossible vraiment de, de développer une industrie cinématographique euh, dans un pays en crise. Raison pour laquelle cet outil ne doit pas souffrir du contexte politique. Que tous les pays en crise on, se sont retrouvés avec un cinéma quasi inexistant. On ne peut pas développer le cinéma en période de crise. impossible. Au-delà de l'engagement politique et de la prise de position, le cinéma peut aussi servir d'introspection et de miroir à la société sénégalaise. Le cinéma, oui, peut aider, peut accompagner toute société vers euh, une euh, réflexion, une introspection euh, face à une situation donnée. Mais la situation actuelle demande une, des réponses immédiates, là. Euh, donc le temps d'un film ne permet pas euh, de proposer des solutions. Donc euh, c'est pour cela cette, euh, ce manifeste qui est là, va, euh, qui nous permet de dire là et maintenant euh, ce que nous passons de la situation du pays et que nous dénonçons vigoureusement. Quel est donc le sens qu'il faut donner à ce manifeste signé par plusieurs cinéastes? Moussa Sen Absa, euh, le réalisateur du film Khalé, nous parle du sens de cet engagement et de ce combat qui est au-delà de la politique. en tant que tel, euh, son engagement est capital. Son engagement est capital, surtout dans un contexte sénégalais où, quand même, quand vous regardez les films de Djibril, euh, quand vous regardez Yen et, et, et, et ce qui se passe aujourd'hui, quand vous, quand vous regardez Geloa et ce qui se passe aujourd'hui, quand vous regardez Tableau Ferraille et ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte que ces trois récits ont mis à plat tous les enjeux de notre société. Et le besoin de justice, euh, l'accaparement des ressources, le refus de la, de, de, la mendicité, le, le, refus de la mendicité étatique. Euh, nous, sommes dans un pays qui regorge de ressources. Nous avons du pétrole, du gaz, du zircon, du phosphate, euh, de l'uranium, du diamant, de l'or, du, euh, marbre, du fer, euh, la mer. nous avons Alors, comment se fait-il que, comme à Coloban de Djibril, euh, euh, nous, nous avons tout. Comment se fait-il que nous, soyons riches, mais nous attendons la vieille dame qui va venir nous offrir des milliards, par exemple C'est exactement. si vous regardez la, la, cinématographie sénégalaise, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de ressemblances avec la société actuelle. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que si les cinéastes ne, se, ne bougent pas, si les cinéastes ne se mettent pas dans le combat, le combat au sens noble du terme, c'est-à-dire euh, d'être avec le peuple et de proposer des solutions au pouvoir public en leur disant nous sommes là, nous regardons. Nous regardons et nous allons intervenir. Intervenir pas avec les armes, mais avec nos caméras, avec nos mots, euh, avec nos histoires, pour dire au monde que nous ne méritons pas ce que nous vivons. le Sénégal n'est pas un pays violent. Nous pas, nous ne pas, nous, nous avons été l'exemple de, de, la Comment en on arrivé là Je pense que cette question question qui importe beaucoup à tous les cinéastes sénégalais. C'est la fin de votre journal de la culture réalisé avec le concours de Fabakari Assimbi Koli, l'un des initiateurs du manifeste actuellement à la Berlinale 2024. Merci de l'avoir suivi. dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatit tey jilee dañu koy def benn ponk waxtaanee taxawaayu aar rawatina taxawaayu cinéma jamono joo xam ne am na yëngu-yëngu ci réew yi yëngu-yëngu yoo xam ne wàllum politique la ndaxam cinéma ak aar yi nga xam ne moo jëm ci wàllum mbatit dafa war a toog rek di seetaan dëkk bi di yëngatu wala dañoo war a jël seen kàddu jël seen position daal di wax wax boobu nu mu nar a demee nuñ ko war a déggee ak ban tonalité la war a am laaj yooyu la ñu samp ay cinéastes yoo xam ne jamono jilee ànd nañ ko seen i tontu maam Ass Seck bokk ci cinéastes yi nga xam ne ñoo siifee manifeste bi nga xam ne gën na te di waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci wàllu taxawaayu cinéastes yi ak seen xalaat mooñ ci andil la xabaar. manifeste bi euh, yi nga xam ne cinéastes yi ak yi ñoo ko signé initiative yu bokkul la yu ñu boole daf ko benn yu jóge ci ñu mel ne ñun ñuy liggéey ci secteur bi ñu su bëri dañu am tur ñu xam leen ñu bañ leen xam. lu tax affaire bi interpellé ñu avant tout ay citoyen lañ dëkk Sénégal et politique bi nga xam ne suñu gouvernement yi moom la ñuy am ak comportement yi ak climat social bi di impacté ñun d'abord en tant que mais dañuy impacté aussi en tant que professionnel parce que suñu liggéey ñëpp xam nañ ne climat social bi daf ci am pàcc bu rëy bu mu ci joué cinéma ak audiovisuel moom daanaka amul sax frontière ñëpp xam nañ wàllu muy liggéey ci côté engagement ndaxte conséquence politique ak loi comportement suñu dirigeant yi impact bi muy am dans notre société daanaka ñun lool la ñuy wone loolu nag soo koy wone dafa am taxawaay boo war a taxawee mooy ñun ñoo war a fixer dans le support jamono ji ñuy dund histoire nga xam ne suñu ay sët ak ñeneen ñoo koy xool gis na ni cinéma moom ak cinéaste yi dañoo mus di doon ñoo xam ne dañuy dugal seen loxo ak seen làmmiñ ak seen xalaat ci ni réew mi ñu doxee rawatina senegal gile. waaw cinéma même bu jegee sax baatu artistes yi baatu population yi la. ndaxte ni muy dimbalee ñiy jiite. ñu xam li population mu dund. noonu aussi la ñu mën a influencer jàngat jàngal ñi nga xam ne aussi am na yoo xam ne xamuñu ko ci nan la ñuy jiite. cinéma dana la permettre nga dajale ay dëkk ay monde c'est comme si da ngay voyager comme si da ngay lire ay livres. donc loolu dina permettre ñi nga xam ne ñooy jànkantoo ci moment ji ñooy jànkanteel ci moment bi nga xam ne moment historique la fii euh, ci euh, li ñuy dund nii muy crise bi nga xam ne nee nañ euh, dafa judd bi suñu président Macky Sall ne moom dafay tuxal élection yi te loolu daanaka musta am ci Sénégal daf ñu delluwaat 1960 te 1960 ba 1963 du moins da ngay gis ne fee yi gën a mag bokk na ci historique entre Senghor ak Modou ca te loolu sax boo xoolee William mbay defoon na ci benn documentaire bu ñuy wax kémtu yu ñun nag bëgguñu ñu delluwaat ci ginnaaw dañu bëgg avancé moo tax moyen bi am mu nekk moyen bu am doole parce que septième art daanaka pouvoir la moom moo ñuy permettre te moom lañ bëgg a utiliser tamit pour wax ak ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite. ñu yëngu ci cinéma war a bokk jël seen kàddu yëkkati ko daal di wax ndaxte crise bi léegi dafay am jeexital ci seen liggéey rawatina it ci wàllu koom-koom ndax cinéma dafa lëngoo ak koom-koom. effectivement am na influence am na jeexital ci économie muy suñu suñu su ni ñuy dundee ak suñu liggéey ak liñ ciy am ndaxte boo xoolee dëkk boo xam ne daanaka depuis 2020 ba léegi dafa manqué stabilité parce que dañoo jóge ci Covid rek ñu dal ci 2021 affaire Euh, crise bii nii boobu ba léegi moom mooy kon ne ba jamono ji képp kuy dund ci milieu bi xam nga ne mu waroon am dinamisme ci tournage ak yooyu am na jeexital ndaxte bu ñuy xool muy tournage rek muy euh, collaboration yeeg muy super production yi dañuy xool ay endroit yoo xam ne dafay apaiser pour ñu mën fa tourner donc li koy économie bi di di yëgee noonu la ko euh, monde cinéma di yëgee. boobu lee di moyen de communication bu am solo boo xam ne daanaka xeetu seetu la boo xam ne askan wi mën na ci gis boppam di daal ci dégg li nga xam ne mooy waxam jëm ci wàllu ëllëgam. loolu moo tax tamit ñu bañ ñu dugg ci góote goo xam ne. du jeex vingt cinq euh, février bi ñu war a dem ba 31 décembre moo tax si suñu lettre bi ñu adressé ko suñu président mais adressé ko aussi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci politique mais tamit jéggi leen adressé ko monde bi pour que Sénégal bi ñu xamoon nga xam ne moom dafa nekk porteur de valeur républicaine ñu garde visage boobu ak kanam boobu nekk mandarga boobu ci Afrique koo xam ne càkkaaba ci diggu. démocratie bi ñu koy wax ci biir Afrique. lii firndeel taxawaay bu mag bi nga xam ne cinéma am na ko ci Sénégal moo di jamono jii la ñu àddu ngeen teewlu yaari film sénégalais ñu ngi nekk en compétition fële ca Berlinale bi bi ci njëkk mooy Demba bu Mamadou Dia. beneen bii di daaw me bu Mati Diop ñu nekk ñaari doomu réew Sénégal yoo xam ne seen film ñu ngi koy am en compétition officielle foofa ca Berlinale bi lu ni mel di firndeel ne cinéma moom dañ ko war a bàyyi xel bu baax ci réewu Sénégal Fabakary Assimbi Koli boo seetloo Euh, si fukki at yi jàll Sénégal fépp nga xam ne woote nañ fa euh, mbirum festival fu nit ñi war a jongante si film yi gën ci euh, at bi Sénégal day teew nu mu bon bon dina am benn boo jëlee dina am benn film bu teew boo jëlee FESPACO boo jëlee festival de Cannes boo jëlee Berlina même chose Sénégal dina fay dem te dafay jëlee ndam ren ñoo ngi Berlina ak ñaari film euh, Sénégal mi ngi Berlina ak ñaari film euh, Mamadou Dia euh, film bu mu def mooy Demba mi ngi en compétition officielle ñu amaat beneen réalisatrice bu tudd Mati Diop mi ngi Berlina ak film bu tudd Dawme long métrage documentaire ñaar film yooyu yëpp ñu ngi en compétition te bañ leen wonee fii si public bi wane nañ leen le 17 ak le 18 bi passé Euh, les films yi accueillir nañ leen bu baax nit ñi kontaan nañ trop ci film euh, film yi ñuy seetaan euh, léegi mbirum ndam moom yàllaa ko moom cinéaste yi li ñu war a def def nañ ko ba ñu ràññee leen ci meilleur réalisateur du moment yu ren ba ñu war a bokk ci Berlina lu ñuy def rek mooy ñaanal leen plein succès yàlla ñu am ndam ci compétition bi ñu nekk nii Euh, cinéma Sénégal jëm kanam. waaw euh, lii moo waral nag ñu war a euh, góorgóorlu sàmm Sénégal Sénégal am jàmm parce que Sénégal bu amul jàmm cinéastes yi du ñu mën a liggéey comme nu ñu waree liggéey parce que ku naan cinéma industrie cinématographique daanaka investissement moo ko yore te dëkk bu amul jàmm. Euh, nit mënul ñëw naan day investir ci cinéma Sénégal. fii la ñu ndar seen xibaaru mbatit bi ñu doon tey taxawaayu cinéma ci jamonoy crise ci ndimbalu Fabakary Assimbi Koli ma nekk jamono jile fële ca Berlin ci Berlinale 2024 bi jërë ngeen jëf ci déglu bi.